waaw Baba Khadim namm nañ la. maa ah, raw sama doom. Baba Khadim bu ma la dee waay. Babacar def nasib woo ma ma bàyyi lépp rek ñëw ndax bis sama bis la te booy sama doom. waa Baba Khadim daa mel ni da ngaa ñëw pour Babacar. waaw Babacar nag day sama doom nasib woo man nag lu ma jàpp dama koy bàyyi ñëw ndax bis bi suñu bis la parce que suñu bisu rakk la dañu ñëw dooleel ko ñun ñëpp nag bu dul woon li may séeji ak Momo Dieng damay fanaan sept heures laay ñibbi damaa war a séeji ak Momo Dieng moo tax mais nag yéen a gi àgg na yàlla na yàlla def jàmm. daal nag sa xarit sa doom nday mu may xool nii yow xulli. dama laa nopp yow dama laa nopp. xanaa looloo saf. ci loo nekk. waaw ñu ngi nii rek alhamdulilah ñu sant yàlla. Babacar tax ngeen def déplacement. waaw Babacar day nit ku baax xam nga rek waaw ménagère boo jaar dama bëgg a ñëw doolal sama rak sama xarit moo waral xaarim ne ma nag Abdoulaye Sall nan bàyyi lépp lu ñu doon def ñëw doolal xaarim Babacar ndox ñu jaar du jaar neex mais bu dul woon soirée sax dañu fa naan ba bëri set même daanaka toj. dëgg daaw doo naan ko